صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع لبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع الحبس والسفر فلا يبتغي بابي خديمه عجيبه بي جاهه دمون الغليل نفر رديت عن الله سلاما لعبت بظفر صلاة وتسليم ما البشر سرمدا على من بيوشي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من خلق لي مقاسا وتبشيرا لدى الجن والبشر رفعت شغال البار لغير مخلد لباخ ما الذي عزوا خبر على كل سيد وابدا لوابه وعلى من بيقه ده صفوا بلا قدر فصاب خير الخلق أبد القصائد وكوني بأبدا قديما لوزا ربيت ربا يقول خاتمي فللذي كوني عجيبا لو اشتهى صلاة التي خالد كوني خليله على من بي لطيب يا بلبل وغدر فتوات رب العرش أنخت معايدي بجاه لسيبا بإيمان على مدر رباي في رباني في خدان بخير ولا بدن وفي كل شهر زين رضي وفي سفر وجاد كل يوم بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك نادي البدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيش بك وسريتا من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات ساتين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وشعبه يا من جعل الغراب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأفراد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجاد كل عمد وزكاه إلى ولي المؤمنين وسكار كل يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الآد البير أنزلت فورا ديانا كل من ليس يكون آمنا يا جسما أنزلت فورا ديانا كل من ليس يكون مجرما يا ذا الزمن أنزلت مورا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نباتنا بأفضل الإيمان ولتنفي الجميع بالأمان حافظتنا به وبالإسلام ولتعفس كل أن المرامين خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء يا من أمدا غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يهبدا إلا نبي قد الصلاة والشلاة والأنبياء والرسل المنشي الكلام على نبي محمد وعلى آله نابو نسان تسمي بلو سبحانه وتعالى مومي حمان تاني مونيو ملال كاتنال هم فيتني فب دمبلي نيو بيتخ ñu nek ay julit yemu ca mu def ñu ay murid serigne touba khadim rasul waxoon ne dafa tan ci julit ñi nga xamanteni ñoo gën mu bok ci mbolom loolu ñong ko sante suñu borom subhanahu wa taala ah yalla suñu borom subhanahu wa taala dox dogal ñu dox be tassek jëm ju tedd bo xamantene mon nañ koy sante bi bañuy faatu te cyant bi duñ ko motal monsieur ahmadou mbake maul hayat Wa mom mi nga xamanteni ginaaw yalla subhanahu wa taala mom moo tax ñu xam magal tuba lu muy saf ndax mën nañ la wax li nga xamanteni mo waral magal moy teew ci bërepp bi am ko mën ko joxe ci ngir jëm yalla subhanahu wa taala ñu xiwloo ko jang alquranul karim wa jang xasaydu suñ tuba yu loolu yëpp nit mën na koo def te maanaam du ci am yëg-yëg waaye ki tax ñu am yëg-yëg bu wër ne magal gi ndimbalu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la kooku mooy Cheikh Ahmadou moom maawul xayaat moo tax ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu mu yàgg fi lool te wér te lépp lu mu naal ci ci yoon bi ci liggéeyal yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla may ci lu kawe njortam ñu ànd koo ak moom bi jaay sayyiduna wa nabiyana mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bëgg ñoo ngi kontaan ñoo ngi wax alhamdulillahi rabbil alamina yàlla na suñu borom dogal ñu yàgg bokk ci ñi nga xamante ne dañuy teew ci keppaaram ngir magal bés bi di sant cheikhul xadim di ñaan suñu yaakaar cheikh ahmadou mbàkke maawul xayaat suñu borom yàggal ko ci kaw suuf naal yim naal jëmale ko ci toolub lislaam bi suñu borom kàttanal ko te ñu ànd kook moom ba mu àggale liggéeyam bi bu sell bu kawe bu màgg bi tey jii di bisub samedi ñuy célébrer bisub 18 safar di màggal gi ndax sëriñ tubaa dafa wax ne sant leen leen ma sama boroom waaye ñun ci biir cant googu Serigne tubaa woo ñu sant suñu borom amaat nañ ci ñun yeneen xeeti cant yu ñuy cantaat ci biir. ndax booy seet sax tey bis bi dafa dellu si dëgg-dëgg taarix ndax tey bisub samedi la te suñu sang bu tedd bii bisub bis ni tey mooy bis bi nga xam ne moom la feeñ jamono doon ndimbalu jaam ñëpp doon yërmande ñeel jaam ñëpp kon tey ñun dañoo am ay kàddu cant fesal suñu cant ak suñu mbégte di feddaliwaat di yeesal suñu jaayante laxasuwaat àndaat ak moom ndax lépp lu ñu mës a woo bañ ànd ak moom ba tey lépp lu ñu mës a woo moo ñu ci mën jëm la joo xam ni tàggat nañu ci nangoo liggéey nango jaamu suñu borom te diko selal sellal jëmmi leer la jëmmi yërmande la kon bis bi dal xol yi dafa fess ba kenn mënu ci wax sax lepp liñ ci nga xamni yegg nañ ko ci bisu tay bi ñu suñu borom bimu ñu maye ñu fekk ko di ñaanal suñu jëm ji yalla yagal ko fi at yu bare bare bare wayfal yaramam ba nalim nal ci l'islam wax mom l'islam rek moko ñor te fépp fu mu ñëwoo dole l'islam kep dole l'islam kep moko fa tax di wote ñu koy santat diko ñaanal di boo xam ne ñu ngi laxasuwaat àndaat ak moom saa su gesoo rek gis ñu ci ginnaawam waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di sant mbokk taalibe yëpp xëy na kàddu yu barkeelu ak sant la woon fësal suñu mbégte ci bis bu tedd bi dañuy tàmbale suñuy kàddu rek ci sant suñu borom bi nga xam ni moo ñu amal ci gannaaw ak ñàkk julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal ak leer ak tawfeex yàlla moom dañ di dooteeku ci réewu borom bésub tey bi nga xam ne moom la ñuy màggal monsieur Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ki fi toogee jotaayam sëñ Cheikh Sidil Mokhtar moom suñu borom yàggal ko fi di yëkkati noonu it ay kàddu di ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat suñu borom yàggal ko fi ba li nga xam ne it moo ngi koy liggéey ci lislaam di ko liggéey ci diine gi suñu borom taw feexal ko ci moom ci lu kaawe njottam am jote jaam ñëpp kon dañuy sant rek ci biiri sant ndax ni koy ko waxee saa su nekk 18 safar bisu sant suñu borom la subhaanahu wa nga xam ne sëriñ bi doo ko woo bépp taalibe rek mu sant ko suñu borom lool nak yaakaar naa ne ànd nañ ak serigne bi ci gën kaa rafetee ni anam ndax kat jotaay bi muy bërepp bi muy Taybatul Karim nga xamni fi la serigne bi del bañ fi ñëwé bo ba légui ci liñ nekk moy ci jang alquran jang khasida ak tuddu yalla amul ben sa wala muy waxtu wo xamni ni dang ko neenal lool nak yaakaar ni mooy doxalinu serigne bi manam fu mu mën di nekk non la and nak talibé yi muy jaamu yalla gu sel Deng suñu borom subhanahu wa taala gu wér yaakaar naani tay tey loolu lañ ñëw daje fi bokk ko mbokk talibé yi fi nek di ko yeesal kon dañ koy ñaanal suñu borom yagal ko suñu kanam ba loolu nga xamni ni lay def ci talibé yi suñu borom yagal ko suñu kanam ba am ci lu kawé njottam ak njotti jaam ñep ñun dal ñu ngi sant bu baaxa baaxa baax a loolu ci teunk kaddu yi ndax kat li nek ci xol lepp amana kaddu bu ko bëggee wax ku xamut mën naa mëna mëna ci yëkëté ay kàddu té dal sant dal lañuy def di ñaanal ku tédd ki Cheikh Amadou mbacké Mawal Xayat yàgg fi bañ ñëw fay ati ati at at ak mom di magal bis bi. bis bi nak day bésu sant sun borom subhanahu wa taala di besu tawféex di bésu ngeenel bo xamné xam gi dëgg ñu ko ñu ko commencé biñ tassé jëmm ji suñ borom boole di Cheikh Ahmadou Mbacke maawul xayaat ndaxte buñ seetee dëgg dëgg dëgg dëgg lan la sëñ bu mag bi woote dafa bëggoon taalibe yi dund suñ borom subhaanahu wa taala dund bu wér a wér a a wér ndax booba xam-xamaa fi lépp a ngi fi waaye la mu bëggoon dëgg mooy ay jëmm yoo xam ne dañuy namm namm jëm ci suñ borom subhaanahu wa loolu nag boo xoolee jamono ji dafa mel ni dañoo dem ba la sëñ bi bëggoon dëgg dëgg dañ koo umpale loolu nag moom la sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke maawul xayaat xëccaat ndaw ñi jëmeñu ci ndax fii képp ku fi teew di nga xam ne bés bi bésub jublu suñ borom subhaanahu wa taala bésub sant suñ borom subhaanahu wa te mu ngi ñuy yar ci lan mu ngi ci mu ngi yar ci am ak bëgg ci suñ borom amit bëgg jublu suñ borom subhaanahu wa taala bëggit am yegg ci suñ borom subhaanahu wa taala loolu mooy suñ yitte mooy jublu yàlla subhaanahu wa mooy wàkkirlu ci yàlla subhaanahu wa mooy xam ne yàlla rek mooy ki fi nekk yàlla rek mooy ki ñu war a jaamu yàlla rek mooy ki ñu war a jublu yàlla rek mooy ki ñu war a wàkkir suñuy mbir ci lu nëbbu ak ci lu feeñ loolu moom ci la ñuy woo saa su ne te loolu duñ ko commencé yëg bi nga xamee ne jaxasoo nañu Cheikh Ahmad mbake Maawul hayat? kon jëm joju ñu ngi koy ñaanal wër ak mucc ñu ngi koy ñaanal wër ak yàgg fi lol ndax yàgg fi moy sun njëriñ moy njëriñal julit ñep ndax képp ko war li nga xam ni moy li seigne Touba bëggoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg koku képp koy ñaan war la ñaanal nga fi lol lol lol lol ndax sag yàgg fi njëriñal julit ñep la ngi jéglu ci kàddu yi bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñun de wax dëgg yàlla amatuñu lenn li ñuy tiit mba lan la ñuy jàq ci walu diine islam comme ni ko suñu borom santane ñu dal depuis bu ñu bu ñu jaayantee ak mom ak léegi yéeg yéeg ci suñu borom ak xam yalla dara ci suñu borom ak xam ni ñuy jaamoo yàlla gannaaw bu ak gëntuwee mu ci ci ci ci jëm moom ci mom mom mom moom ci moom maamal xayaat moom lañ ko xamee li ñuy jox jaamu yalla bu yeg yeg yalla deug deug deug ñoo ngi ko xamee ci moom buñ ko xamee moom moo tax bi ñu nekkee murid nag yàgg na waaye nag comme ni ko gaañ di waxee dañ daan muriirandoo rek lañ woon depuis nu jaayante ak moom nag ci soogaan nag digg xam lan moo di murid xam li sëñ li nga xamante ne moo taxoon sëñ Touba wàcc ci kaw suuf li taxoon suñu borom wàccee sëñ Touba ñun buñ ko xamee maa xayaat moom moo ñu ko xamal muy Cheikh Amadou Mbacke kon duñ def di duñ def lenn loolu di ko sant di ñaanal li mu simb ci islam ji gindi gi mu bëgg gindi jami yi leen ci siraatul mustaqim defaraat yi mu nar defaraat jami no noo ngi ñaan suñu borom nga xamanteni mo mo amé katan amé man-man té ku mu nga am katan ku mu manal nga nga am nga man yalla nako suñu borom manal li mu bëgg ci islam bi suñu borom defal ko ci la kawe ndax té ñun di wax di yàlla waxatuñu dara ñun wax di yàlla ñàkkatuñu dara wax di yalla nun daal nun daal nun daal wax di yàlla séddu nun li ñuy wax nun séddu daal moom daf nañ ko wax di yàlla suñu xool sedd na depuis nu jaayante ak moom ba léegi daal yéeg yàlla dëgg daal ci moom ñu ko amee xamuñu dara mënuñu woon dara dañ daal géemtu rek ak di taxawaaloo di defi kenn xamul léegi nag sunu lijji teeg sunu man-man sunu yëngoog sunu dal lépp ci sunu borom lijjeetu lenn lijjanteetu lenn ni àdduna ludul sunu borom jaamu ko rek ci lu nekk guddee bëccëg suba ak fexé nañ ko mané ak di ñaan di ñaan duñu jog di ñaan sunu borom gindi jaami xamal leen jëm ji moom modi kan ndax li ko tax jog ci kaw suuf modi rek defaraat diine lislaam gi yàq gi mu yàq tegaat jaami gi ci mu dafa bokkon ci liggey serigne Touba da bokkon ci li tax serigne Touba demon ci géej li taxon serigne Touba di liggey kon no ngay ñaan sunu borom mi nga xamantene mom moko wacce mu xamal jaam yépp kumpa dañ ci ñoom bi ñuy jànnoo dëgg ji ndax kii dëgg dong moo ko ñor moo ko tax jóg moom lay woote noo ngee ñaan suñu borom ay waay suñu borom noo ñaan nga ngir nga ngir muri kii rayal jaam yi ñu xam jëmb ji الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن شيخنا شيخ أحمد بن خادم الرسول وعن جميع أتباعه شيخ أحمد مبك يلا في أجدور شيخ أحمد مبك يلا في أجدور ñu lay yëkkati kàddu sax lot nañ ci lool ndax kersa gi nga xam ne yëg nañ ko suñu kaddu nak ñu ngi koy jël tay di si jublu jëfe ndigal rek waye kaddu mom lot nañ ci lool biñu fi taxaw jóg rek biñu fi taxaw dëkk ci barab bi moy santale cheikhul khadim borom subhanahu wa taala gannaaw ba ko suñu borom defale ay tawfiq mu lot mom ci jëmmam ci sante suñu borom dëgg dëgg ciant gi yalla ci mom mu ñaan képp ko xamne mbegam sa mbeg la bu bés bi ñëwee nga santale ko borom subhanahu wa taala waye mu melni ñun cyant gi dafa am jeneen cyant ku jiddu ci bir ndax cheikhul khadim radiyallahu taala anhu jam la bu doon sakku dara ci kanam borom subhanahu wa taala suñu borom lek ko nang ko bëgge mu beutiku doon jam bu gore di sant borom subhanahu wa taala waaye ñun dey loolu cheikhul xadim doon sàkku ci borom subhaanahu wa taala ñun yàlla daf ñoo defal tawféex bopp doonul sax lu ñoo jóg di ko sàkku ci moom waaye coobareem rek moo tax mu defal ñu ko waaye nag ñun mboolem xeetu cant yi rek dañ koy fab di ko jël ci jëmm ji nekk ci biir mbaar mi nga xam ne lott nañ ci sant ko ñun tamit ndax lépp lu mu mën a doon rek moom mii la imaam Xasali dafa wax ni jaam yi dañoo séddalikoo si am na jaam ñoom ñi ngi jaamu suñu borom subhanahu wa ngir bëgg àjjana wala ragal safara am na jaam ñoo xam ne ñi ngi jaamu suñu borom subhanahu wa ngir ndigal li nga xam ne suñu borom moom la joxe ñu jaamu ko waaye am na jaam ñooyu ñi ngi jaamu suñu borom subhanahu wa taala ngir xam ne suñu borom dafa yellu ñu di ko jaamu sang bu tedd bi nag moo def si ñun ñu am yëg-yëgu ne sunu borom bu doon def ñoo ñu wóoroon ne daf ñoo bind ngir safara it dañoo war a sax di ko jaamu kon wax deug yalla ñun lott nañ ci yëkëti ay kàddu ndax yëg gi nga xamne mom lañ yëg cant gi nga xamne mom lañ lott ci sant ko suñu borom subhanahu wa ta'ala sant cant gi nga xamne mom lañ lott ci sant ku tedd gi kon dañuy ñaan rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yàggal ko fi lool te wëral ay ciiram suñu borom yi saxal ay taw fi xam si ñun dox suñu digënté ak seytaane dox suñuy diggante musiba ak bakki ak balaay lepp lu tax suñu borom subhanahu wa ta'ala bindu ñu rek ñu sax ci bëkkaraw ñu koy wujji leneen lu ko sopp nak ci ñun rek moom mu def waye ñun dal li ñittel moy li tax mu bindu ñu indi ñu fi ñu di ko ñu sax di def te lépp nag doon jëm ci kappaaru sang bu tedd bi alhamdulilahi rabbil alamin ñuy sant suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu jëlee ci barab indi ñu ci barab di ñu jëlee ci barab te yooyu yëpp di ay jaarowaay yoo xam ne jaam bi bu koy bàyyi xel sant suñu boromam dana yomb ndax it bàyyi xel loolu mooy waral jaam bi mën a sant suñu borom ndax yàlla daf ñu wax ne maanaam bu buñ ko doon xewal yi mu ñu defal ñu ko doon jéem a sant sax duñ ko man waaye bëri naa ci alxuraan wax ni képp ko sant dina la dolli ñu ci biir cant googu it ñu amaat ci ak jagle suñu borom jagle suñu borom mooy jaam bu yàlla gërëm moo génnoon ci bis bii ab jaamu suñu borom bu nangu ak njaamam moo génnoon ci bis bii maanaam dem liggéeyali di yàlla ba am ngërëmal suñu borom. digal ñu ngir ñu sant ko ci biir cant googu it ñu amaat ci geneen ak jagle ndax si Ahmadou Mbacke Maam Xeyaat mi nga xam ne mooy sunu sang ci bis bii la feeñ tombeek samedi ren gi tamit mu tombe waat sambi samedi moom it mu nekk jaamu moom nag mu nekk jaam boo xam daa jox yàlla boppam ma suñu borom gërëm ko maanaam mu diggee daaju cant gi moo tax cant ren gi moom jagle la ci am ak xaas ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa lépp lu mu dëree ci ku cant mu dool la yàlla na suñu borom dajale gi loolu ñu ngi ñaan ci Amadou Mbacke maam xeer mu yàgg fi lool te ànd wér ba lépp lu mu yéenee liggéey ci lislaam suñu borom subhanahu wa taala dafa ko ci kattan dafa ko ci tawféex te ñu ànd moom gën kaa rafetu anam ndax it ci Amadou Mbacke maam xeer daanaka adduna ñëpp am nañ ko jagle maanaam julli am nañ ko ñaan ndax bëri waa na ñun ñii ñu ci bari ñun bu ñu dajee woon ci Amadou Mbacke maam xeer kenn mënu ñoo tee doon bandi ci Amadou Mbacke maam xeer ndax bu njëkk maanaam ay jullit lañu woon ay murit lañ waaye da nga gis ni tereg ca lañ saxoon ndigal suñu borom yi amuñu woon kattanu maanaam matali ko ba doxee ba daje suñu borom subhaanahu wa taala daje nag moom ci la ñu yu bari yomb kon ñu koy sant bu baax a baax te ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér sant nañ daa sant ñu lot li suñu borom daa suñu borom di wax ni way wa suñu di wax ni wayn taxaw nixmatullaahi laa tux saaxa maanaam bu ñu ko doon jéem a sant sax duñ ko mën sant googu dañ cee lot lot nañ ci waaye nag li ko baax yi waxee ne day cant mooy jaam bi dem ba yëg ne lottu na ci cantam digganteem ak boromam lottu na ci sant gi ñuy sant suñu borom. ñoo ngi sant sañ bii di Cheikh Ahmad Mbacke Maawul Xayaat tey jii bu ñu amee sañ-sañ di wax ci micro di wax ci jotaay jëmm ji moo tax tax tamit ñun ñoo gën a doye di ci jaam yi ci rawatina taalibe Maawul Xayaat yi dara xamuñu ko woon waaye bu ñu amee fit yëkkati micro di wax jëmm ji moo def ci loolu ñun ñoo ngi siy sant suñu borom bu baax a baax a baax xam na ne daal dëgg la ñu teg. ci yoonu siratal mustahim lañu tek du sax dekk ginaaw gogu ñu ngi sant bu baaxa baaxa baax a benn mbokk talibi bo ci lamb xolam yalla rek lay làmbat yalla rek ko ñor te loolu mom yalla lañu maral marale suñu borom dëgg lañu defal kon boog ñong ci si sant doyog sant di ñaanal di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool te ñu ànd ak mom top ndigalam tay tet ay terem loolu mo ñu jëriñ tay ak ëlëk ay at ci ginnaaw ku defon ben interview bis buñu ñu gisante ak moom nga defaat interview tay ji ku ñu xamoon dem xamni tay xamni amna lu am ko ci suñu jëm yi Cheikh Ahmadou mbake Maoul khayat moy jëmm ji nga xamni mom moom ñu libéré dafa am ben jaar jaar bo xamni fa lañu jaaré won ñi nga xamni doon formé am luñu namoon ci suñu jëm yi ta lañ namoon suñu jëm yi du lu neex suñu borom subhanahu wa taala ndax moy réeral ñu réeral nit ki moy nga fexé ba mu réere boromam subhanahu wa taala waye mom moy ki nga xamni moy moo suñu borom subhanahu wa taala nga xamni ni nga juggé salal ba ni ngay tëddee ci salal lepp lo def rek ya nga bayyi xel jëm suñu borom subhanahu wa taala do def lenn ngir top sa bakan do def lenn ngir top sa banex do def lenn nit ngir jëm nit ni waye lepp loy def rek da ngay xol li ci suñu borom digle nga diko jëfé non mom mo tax ñu xam lan moy jaamu yalla nga xam ni nit ki limay jaamu yalla rakay yu bari yeeg julli wor yeeg asaka yeeg lepp rek xol bu sell mu am solo nga ñoo fexé mu fexé ba yar la ba sa xol sel ba yow do yene kenn lu ban te lu way am ci lu bax nga yene xol dok iñane li wér wër dal moy Cheikh Ahmadou Maoul khayat ñun amuñu fayal ndax daf ñoo libere dafa am koo xam daf ñoo nootoon du nootu doole waaye nootu jëmm la nootu xel la mu ñëw libéré suñu xel yooyu libere suñu jëmm yooyu ba fexe ba xel mi ak jëmm yi mel nu ko suñu borom subhaanahu wa taala bëggee mooy ki nga xam ni moom moo ñu jubale ak suñu société ba daanaka foo dem ak foo nekk jotaay boo nekk rek lu nekk suñu borom nga fay nekkee jotaay boo nekk kenn du la xebat ci den ci say wax ci sa jëm ci sa melo ak ci lepp lay mo def rek kenn dula xeb lolou buñ ko amé cheikh ahmadou mbake maaul xayaat moo tax ndax dañ ñoo programme mon pour lenen pour ay ñeukalante ay ëppalante ay daraja ay yëkkatiku mu ñëw dindi lolou yëpp xamal ni lolou du dara lepp du ko fi bàyyi dugg sa bir bammel té lepp lo fi ligéyul bala bis boba ñëw di ko reccu di werte wër dal cheikh ahmadou mbacke maawul khayat mooy suñu libérateur. ñu xamal ñu leen ñu xamal ne suñu sëriñ bu tedd di maamul xayaat de képp koo xam ne bëgg na tawféex képp koo xam ne bëgg na ak tedd nga képp koo xam ne bëgg na ak àgg ci yàlla boo ñëwee fi fekk ko fi ndax jàng ñu lu istiqaama ak makaarimal axlaax la jàngale ñun di ay jëmm yu doy di doon jaar ci ay daar yu bari jàngoon ay téere xam-xam doon jàng alxuraan doon jaamu yàlla tamit. wante bu ñu ñëwee ci maawul xayaat de ci lañu gën dégg téere Serigne Touba ci lañu gën dégg alxuraan istiqaam ak makaarim al axlaaq tamit fii lañ ko jëlee kon muy jëmm joo xam ne jëmmi leer la ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ñoo xam ne njëriñu jullit ji yëpp la njëriñu murit yëpp la sëriñ bi de képp koo xam ne yàkkamti woo te nga ànd ak dal lépp loo bëgg suñu borom subhanahu di nga ko am ndax ñun ñii de di wax ak yéen xam nañ ci lenn am nañ ci moom fukki at ak juróom-ñaar wante yëg suñu borom subhaanahu wa de fii lañ ko yëgee bànneexu suñu borom subhaanahu wa taala de fii lañ ko xam suñu borom subhaanahu wa taala fii lañ ko yëgee kon ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te ñu ñu leen xamal ne yéen mbokk taalibe yi nañ bañ sëgg te bañ a siggi te xam ne suñu moom defal nañu xéewal bi màgg xéewal tawféex ndax ak juddit lepp ñuy upp len long wax ci ak dal te bo ñëwee fi di nga am dal kon ñu ngi soñu mbokk taal yépp soñu soññ mbokk yépp ñu ñëw naan ci leer subhanahu wa taala góorgóorlu ci ak nit ak sellal tey moom daanaka besu tiant la rek ndax cant moom weesuwul suñu borom bam la bindé ne la binduma la lu nga jaamu ma nga nekkon ci lo xamanteni manam suñu borom geureumuko ci anam boo ko mënee xoolee rek daanaka nekkoon nga ci te kat maanaam niñ koy faral di waxee rek ay jullit lañu woon ndax boo xoolee suñu tur yi ay Muhammad nga ciy gis ay maanaam turi jullit rek am nga nekkoon ci loo xamante ni wax dëgg fa yàlla leer nga ne suñu borom gërëmu ko waaye maanaam dafa am lu la manqué woon lu la manqué woon nag mooy maanaam ku la taal koo xamante ni daf lay woo ci suñu borom. maanaam euh, nga xamante ni maanaam dalay indilaat définition li taxoon suñu borom bind la définition yi kat niñ koy faral di waxee rek mooy maanaam dalay xamal ne suñu borom moo la bind moo la menal moo la kàttanal moo la fi indi te moo lay rey moo lay dekkilit te moo lay laaj te bu lay laaj kat lépp loo xamante ni maanaam defoo ko woon rek wax dëgg fa yàlla rëccu rek lay doon kon nag ki woo ci yoonu njub kooku wax dëgg fa yàlla mënoo amoo amoo lenn loo xamante ni maanaam di nga ko ko mën defal ak mënul cant nekk ci nag ñun de wax dëgg fa yàlla ñàkk nañ Pastef lool waaye yéene bi moom mu ngi si ni ko sama jëwriñ di waxee nag maanaam li ñu ku baax ki moom ci lu mu woote rek li ñu mën ak lu ñu mënul yëpp dinañ ko ci def waaw di ñaan nag suñu borom saxal ñu ci sax sax sax dàq ndax maanaam xéewalikat li muy bari bari bari wax dëgg yàlla sax gi rek mooy tax jëriñu ndax manam dafa dañoo jogon di sak lu bax suñu borom ubil ñu buntam kon nak lepp li nga xamanteni ni bëgg nañ ko ci lu bax rek muy àdduna ak alakhirah manam fi la ne kon ñaan gi dal moy loolu rek suñu borom saxal ñu ci eh, àdduna ak alakhirah ñu and ko mom àndin bu rafet te lepp rek ñu bañ ci gis suñu bop suñu borom subhanahu wa taala di suñu mi si ahmadou mbacke maawul ayat yalla suñu borom yagal ko ci ñu kanam lol, te wéral ko aw fanam ba lépp lu mu nama liggéey sangam ba Cheikh Saliou suñu borom defal ko lu kawe ay njotam ci barkeb Cheikh Saliou di ñaanal ki tooge ab jataayam muy Serigne Sidi Muxtaar mi tooge jataayu Cheikhul Khadim suñu borom yàggal ko ci suñu kanam te wéral ko ba mu fekkee ay màggal yi màggal ànd kook suñu sang bi Cheikh Saliou mu Serigne suñu borom yàggal ko mooy suñu kanam te wéral ko di sante suñu borom bu baax nag si daje gi ñu daje ci bisub Cheikhul Khadim bi te li ko tax a jóg mooy sant suñu borom subhaana wa taala te ñëpp teg ci seen bët ci ni koy sante ci ni koy sante mooy suñu borom ci boppam moo amal ruu yëpp amal jëmm yëpp melal ñëpp kattanal ñëpp liggéeyloo leen te suñu boroom ku ko liggéeyal dina la fay waaye xam nañ ni liggéey bi mu liggéeyal seexul seexul xadim liggéey bi mu ko doon liggéeyloo fay na ko ba doomu aadama yëpp teg ci seen bopp teg ci seen jëmm teg ci seen bët kooku nag cant googu ñuy cant nag. dañ ci am beneen par bu ñuy cante cant goo xam ne dañ ci sant suñu sang bi di cheikh ahmadou mbacke ndax nun kat ay jam lañ yoo xam ne yu xeebu lañ woon yu doye lañ woon daan ànd ci riir mi daan ànd ci mi daan ànd ci kaddu yi daan ci jëf yi bis bi ñu taxaloog si ahmadou mbacke maawul ayaat suñu borom defal nañu loo xam ne ñëpp ci àdduna noo ko ndax su rek moo sakkan suñu borom defal nañu tawfiq jub su dee jàng alquran di wéeta suñu bop wéeta suñu borom di gis ci suñu borom mo xamé ne ñu amal té fuñu kenn fuñu kenn fekkul di dello amal gim amal di faté suñu bop ñu ko ñamee ci jëmmi si ahmadou mbàkke maul ayat ba magal gi magalé cheikhul khadim di santal suñu borom nit ñi koy yégué yégué ñu ko fenn ci kaw suuf judd ci kipkaru jëm ji kon yalla nako fi yalla yagal lool té wéral ko ndax kat ay jamm ñoo xamni dañ na ci mi rek waye niko Serigne Touba dan won dan ko défé daan ko diglé biñ ko ñamé ci Cheikh Ahmadou mbacké Mal Ayat dañ ko ñamé kon yalla nako fi yalla yagal ndax daraan wax ni nañuy jang alxuraan nañuy tuddu yalla nañuy nañuy top suñu borom di def ay salatu al nabi jël bis bi def ko bisub sunna def ko bisub farata def ko bis bo xamni ne dañ bis bu bis bis bu mom, bu nañu gëna bis yépp nañ ko bisu sëñ touba bi gënal kon nak lim ñu ko gënalé ak nim ko doon défé ba nga xamee ne su Serigne Touba del si waatan jamono ñëw fii ci kippaaru si Ahmadou Mbacke maal ayat arfan bi arfin arfan bi arfin arfan bi arfin xëy suba teel teg suñuy kaamil di tudd suñu borom xëy suba teel di teg xasaay sëriñ Touba yi xëy suba teel di siyaare si Ahmadou Mbacke maal ayat di ci dëgg di ci yëg suñu borom fii lañ ko amee kon yàlla na yàlla yàggal te wéral te nga xam ne lépp lu mu naan ci lislaam te nag lii de bu fekkee doomu aadama sakku na leneen lu dul lii maandu ci jaamu di topp suñu borom ci guddi yi di topp suñu borom ci bëccëg yi jël su lépp jox ko yàlla su fekkee loolee de moom moom la doomu aadama sikkal kon xamoo lu baax ci kaw suuf waaye nag yàlla nañu yàlla mosu ci seytaane te mosuñ ci musiba yi mosuñ ci balaa yi fexal ñu ci jëmmi Cheikh Ahmadou Mbacké Maol Air. Eh. ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di sant yàlla di ko ñaan mu saxal ñu ci sant bi jëmale ko faw li tax ñuy sant nag suñu borom subhaanahu wa taala ñu ñu bind te moom ñu kattanal ñu. mooy boole gim ñu booleeg Cheikh Ahmed Mbacké Maoul hayat ndax ay jullit lañu woon laata ñu kon ko xam doon jaamu yàlla di joxe farata yeeg sunna yi ni ko suñu borom subhanahu wa taala diglee di roy it Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci sunna waaye biñ mom moom jaxasoog moom mu duyal ñu ci lañ commencé yëg suñu borom subhanahu wa taala te yëg googu ñu yëg suñu borom subhanahu wa taala nag yàgg nañoo nekk ci biir diina ji di jooxe ay julli ak i farata di jëfe ndigal suñu borom yi te yëguñu ko biñ takkoog moom ci lañ commencé yëg suñu borom moo tax ñu sant yàlla nag ci boole gim boole ak moom ba ñu mën a yëg suñ borom yal na suñ borom subhaanahu wa taala saxal ñu ci yëg googu ko yëg ak ci keppaaram gi man nag wax ji du mën a bëri yëg gi ma fi yëg sama borom doy na ma sëkk ñaanu ma leneen yokk ci naa sax rek ci yëg gi may yëg suñu borom subhanahu wa taala ci keppaaru Cheikh Ahmad Mbacké maul ul gi gi alaykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh salaatu lasi fi kulli shay'in wa fi safar حماني على ماني ما لبس واستفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء مع الهبس والسفر